ndaxte ci loolu lala yàlla woo te looloo waraloo nit sa seede su rafet fa kanam mbooloo mu bari noonu fi kanam yàlla mi jagleel dund ci lépp ak fi kanam kirist yeesu mi seede woon seede su rafet fa kanam pons pilaat maa ngi lay dénk lii sàmmal ndigal li bañ a am gàkk mbaa ŋàññ ba kere yeesu kirist sunu boroom di feeñ ci ndamam ca waxtu wa yàlla dogal moom kenn mooy boroom bu tedd di buuri buur yi ak kilifa kilifa yi moom kenn moo jegoo dund gu sax dëkk ci biir leer gu kenn mënta jege moom mi nit musula gis te nit mënu koo gis moom kenn yelloo taraanga ak màggaay ba faw amiin ñi barele alelu àddina nag dénk leen ñu bañ a réy te bañ a wekk seen yaakaar ci koom-koom yu saxul fenn waaye ñu wekk ko ci yàlla mi nuy may naataange ju mat ngir nu man ci bànneexu dénk leen ñu def lu baax te bare jëf yu rafet ñu yéwén bay sedd ñi amul di faggu dencu ëllëg bu wér noonu dinañu fedd li seen teey ci dund gu wóor gi céy yow timote sàmmal li la yàlla dénk tangamlul waxi neen yu àddina kese te dëddu werenteey ñi mbubboo xam-xam fekk dañoo réer am nañu topp xam-xam boobu waaye mooy nañu ci yoonu ngëm ne yiwu yàlla ànd ak yéen